jëf ngeen jëf yéen ñi tàmmu dakarnet.com ñu indil leen xibaar bi nekk jamono ji ci Instagram bi di fi def buzz muy kii di Amadou Mohamed Faye di doom ci Mansour Faye Mansour Faye nag di maire Saint-Louis ñu dénk ko ministère bi di développement communautaire de l'équité sociale et territoriale Amadou Faye nag nekk doomam di dund fële ca Los Angeles toll ci ñaar fukki at ak benn jamono ji nag muy étale dundam bu baax a baax ci Instagram bi ñu ci wane benn oto Rolls Ferrari boo xam ne moom lay dawal oto bi nag toll ci ñaar fukki million ci njëkk ak kër goo xam ne kër gu bakkane la lool Sénégal yu bari nag di ko ñaawlu ndax jamono ji Sénégal nekk toll ci couvre-feu ba sax ndimbal gi nga moo jëm ci askan wi papaam lañ ko dénk Sénégal yu bëri di ko ñaawlu ci diggante Baye Ili ak sànneex dafa am benn ojo buy circulé Baye Ili di accuser sànneex comme quoi que moom moo divulgué message bi daan moom dafa génn àdduna wax ci nag bi ci sànneex jote sànneex génn na def benn sortie nee na moom affaire bi métti na ko ba ci kanamu yàlla ndax li tax mu métti ko mooy li mu jóge ci moroomu artistam di bàyyi koo xam ne baayam la royukaayam la waaye moom yëgul tinul dafa yeewu rekk jama ne ko dafa mel ni dama dégg ñu ne bàyyi dafa génn àdduna waaye wool sën ba xam nee na bi mu wooyee sën sën ne ko loolu dañuy wax rekk dara amu ci ndax maa ngi nii di waaj pour seeti Baye il est fële ca Tëngéej Sanex nag def na benn sortie nee na wax ji métti na ko ba ci kanamu yàlla ndax sax li mu tax mu métti ko mooy moroomu artistam bi ñu wax ni moom moo wax jooju noonu nee na nag Baye Ili bu génnul def déclaration réccu li mu wax maanaam ne dafa juum ñoom ñaar bés bu ñu dajee àllaaxira dinañ ko layoo ndax wax jooju moom métti na ko torop ci fàttali rek Baye li da doon def benn tournage fala ko lii di AVC dalee ba ñu yóbbu ko jamono ji nag nee nañ mu ngi tane bu baax a baax di ko ñaanal rek mu dellu si jàmm ak salaam ba continuer di ñu bégal